dina seet bis ba ban ba nga xamante ni nii ñoo àndoon ak moom gunge si ko sëñ bi na ni saa yu bis bi del siwaate dana ñëw fanaan ak moom ci dëkk bii te képp ku fi bokk fanaan ak ñoom suñu borom jéggal say bàkkaar